bu benn armi xam nga comme euh, wax naa ko tànk ni euh, technologie nag daf ñu permettre euh, ñuy defaral lépp suñu bopp ma demee fekk naa namu li way wi mm-hmm. ci ku polu ki nga xamee ni moo di Youssou image yooyu la nga xamee ni jëlee nañu ko fa bu ko defee ngeen mën a gis naka la Abdou Thioubalo wooyee ci jarama Cheikh Tall mu ngoog kooku nag Abou Thioubalo la keroog euh, ba ñu ko euh, fekkee ca studio ba gis nga euh, et puis am na attention boo xamante ni ñoom am nañu ko mais yow danga leen doon da leen def comme comme yore doom di ko euh, di ko won euh, loolu laa sentir waaw di ko di ko di ko di ko di ko bàmbaane ci liggéey bi waaw. waaw waaw xam nga xam nga léegi yéen moom. Uh-huh. yéen da ngeen da ngeen yéen da ngeen sopp da ngeen nekk ay télévision yoo xam ne temps moderne mais normalement lii mooy sunu sauce sauce interne. d'accord d'accord lii mooy sunu biir bu ñuy uh-huh. liggéey ni ñuy doxalee. Uh-huh. fa am na diplomatie am na cër. am na waxtaan. amul gëdd. amul dara yëpp ay naxante la. pour am li nga bëgg. parce que euh, mais waru normalement warul génn. dafa mel ngeen dem ah, ci vestiaire fa footballeur yi. fa ñu nekk di waxtaan public bi duñu ko gis d'habitude. non footballeur yi fa ñuy waxtaanee. Ah, ah, ci biir seen vestiaire xam doo ko wane. de yenn sañ yi. la ñuy woo léegi nii <laughs> euh, mu ñëw rejoindre ñu ci plateau bi toog euh, moom tamit ci fàttaliku 2015 bi la bokk abu Touba loolu ñu ngi lay nuyu mën nga dem toog noonu mm-hmm. bienvenue tey nag ñëw nga ndaanaan ànd ak sa mag ak Youssou leneen loo xamante ni euh, ñaare président du ñu koy gis El Hadj Mbaye Garmi euh, fekk naa itam ki nga xamee ni euh, moo di pap Laye mbay Pape Laye Mbaye di doom ci El Hadj mbay lu tax choix choix wu Pape Laye ci boppam waaw dafa dafa imposé wu bi dafa imposé wu ndax boo nee sama papa Ndiaga Mbaye la tudd mm-hmm. dama bëgg woy mm-hmm. le choix bu imposé woon si. Mhm, mhm, mhm. sur sur lépp. ci la mu bind. ci la mu way yàlla def it nuroo baat. mu am début yoo xam ni que am na promesse yu mu joxe ci ni Ndiaga doon comporté wu durant ci carrière am. en tout cas ñun liñ ci fekkee. suñuy nopp. donc euh, musul way coow bi moo gënoon bari ci moom. Ah. ndax dañuy ñëw ne ko yow Ndiaga Mbaye mooy sa mooy sa papa. Mhm. waaw da nga war a am lii danga war a def nii yow la lii yow la lii yow la. Mhm. Mhm. donc bu ko defee presse bi topp la coow li topp la ngay def bruit te amul benn njëriñ. ma ne ko eh. dama lay wax lu leer nañ. man je m'amuse pas. sa liggéeyu way jur. réew mi yëpp a ko bokk. c'est un grand sénégalais. dama bëgg nga fas jom nga taxaw nga liggéey ndax affaire bi du may doomu Njaga Mbay rek doyut faw nga liggéey liggéey bu am solo pour nga interpréter affaire bi mu hmm. nekk na xale boo xamee ni que hmm. mi ngi soog a door vraiment am nañ ci moom yaakaar hmm. jàng na xelam ubbeeku na mm-hmm. ànd naag dal mm-hmm. mesuré na aussi mm-hmm. li nga xamee ne moom lañ ko fi bàyyi ah donc Pape donc euh, euh, bi yoon mooy mooy bu njëkk daan nañ ko dégg nag di ko gis nii di ko waxante waaw mais bi mooy première fois mu dugg studio moo tax moo tax bi ñu ko bi ñu ko fekkee studio ba tey rek ci euh, suñu sob rek fekk nañu ko fa mu toog ak yow nga won ko waaye woy na la ca la ca neex nag xam naa dinañ ko wax ca kanam bu ñu woyalee sëy bi Euh, dafa am ay coppite yu bëri yoo xamante ni euh, dégg nañu ko euh, ci woy boobu nga xamee ni baayam moo ko woyoon mu nekk ci mm. fàttaliku 2015 mm-hmm. laataa ñu ciy wax mm-hmm. ni ma def ak abu Thioubalo dinañu ko def ak mm-hmm. ki nga xamee ni moo di Pape Lay Mbaye ñu won leen rek ambiance am ak Youssou Ndour ci studio ba keroog bi ñu enregistré woy bi may leen ci mag ñi mag te dox di gis li raam jant ñag bee Sénégal ji ah? ah D'accord. D'accord. <coughs> donc léegi lii mooy wicc yi nga war a def léegi dem yàq on essaie de voir même booy répété benn la ba ko bëgg a xam compter rek quoi. Thank you. Euh, baax ci solo bi léegi parti nag euh, Pape Laye la keroog euh, ba ñu ko fekkee studio moom nag di doom ci El Hadj Ndiaga ñu woo ko moom itam mu rejoindre ñu ci euh, plateau bi dip ndaanaan nag mhm. Pape Laye fekk si ñu ci euh, plateau ndaanaan bu ko defee nga euh, toog ci wetu abu Thioubalo ndax yéen a bokk projet bi nga xamante ni moom la ñu tuddee fàttaliku 2015 tey moom la ñuy waxtaanee ci ndaanaan El Hadj Amadou Mbaye Garmi gis nga nañu ko fekkee mu woy ak magam xam nga maa ngi lay dara tey def naa ne Alpha Ismaïla Congaan kontaan na kuy kooku Mbaye xam na ko moom daf ma defal ñaari invitation ca dëkk boobu nga xam ne nii mooy dëkk bu mag boobu. nga xam ne mooy Angleterre. mu ne ma njaga moo doon suma géwal. mu gis ma sopp ma jël ma. mais defe naa ne dama la teeloon antirine bi. defe naa ne dëgg-dëgg pab Laye màgg na. te yegsi na te yegsi na. ca kanam dinañu woyal ñu déglu ko ndax la mu def tuddee ko sëy baayam ba defoon ko. Euh, mu ngi ci euh, fàttaliku 2015. Mm. Euh, Youssou ki ci topp itam amikole la moom defe naa sa histoire ak moom ah Sénégal miin ko. Mm. ndax lu yàgg la. dëgg la dëgg la Ami bi muy njëkk a way ci scène. Mm-hmm. naa ci ci Thiès la woon. Mm-hmm. ñuy def concert bu mag foofu. Mm-hmm. mu ñu yéegal ko ci kaw seen bi. boobu xale bu ndaw la. Euh, ci lañ ko découvrir Sénégal yëpp xàmmee ko si mu continue dox waaram ba ni mu màggee euh, diggante bi nag yàlla boole maak euh, magam hmm, rakam pardon muy Biram Dieng hmm, Biram nga xam ne nekk xale boo xam ne yàgg na ci Super Étoile ak discipline ak expérience bu mu ci am yëpp ba ci la Amico la ñëw rejoindre euh, tamit def na tournée yu mag yu bare ak ñun. <laughs> ñu ànd ci monde bi yëpp ma koy gis. <laughs> mu gagné beaucoup en expérience ba pare mën a way. <laughs> mais euh, carrière aussi am ay. turbulence mhm, mhm. turbulence moom mooy euh, way gi moom kenn werantewu ko mën na way macha allah waaw mais dafay am ay période yoo xam ne xëy na album ba génn cassette ba mhm. génn wala promotion bi wala mbiru jigéen wala mu dem tukki ainsi de suite loolu moo tax affaire bu xaw a carrière xaw a jaxasoo waaye ñii way kenn ndax ko ci way donc euh, bi nga xamee ni que way wii nga xamee ni ko mooy Sidi Anta Ndiaye te Mamadou Mbaye gar mi wax ko léegi di woy woo xam sama maam Fat Cam moo ko woy bi ko woyee ci Sorano mm-hmm. foog naa ne woy wi gën a mag bi ñu woy Serigne Cheikh mm-hmm. foog mm-hmm. keroog ba nga xamee ne yàlla def ma daje ku muy sëñ Mbàkke Soxna Lo dama ko sa maam Fat Cam Samb woy na woy woo xamee ni que sa woy jur muy Serigne Cheikh woy woo xam ne kenn mënu koo démonter. Mhm. ma ne ko kenn xalaatul démonter ko. waaye man it dana la woy woy woo xam ni. Mhm. dana jafe démonter. ci laa ko woy Serigne Mbacke Soxna Lo ci mhm. Bercy. kon way woowu daf ma marqué. jóge ci man ci sa maam. nekk way woo xam ne dafa marke histoire musique traditionnelle Sénégal ci façon wayin bi ñu way ko ku mat koo xam ne que réew mi ñoo ko amee njukkal muy Serigne Cheikh côtéem ci ku tedd ki muy sëñ Touba. way ci côtéem ci Lat kon nag bu lu mel noonu amee muy symbole bu mag way woo xamee ni que man depuis quelque années mën naa ko bindaat naa ko defaraatoon naa ko ba pare yàgg depuis ñett ñeenti at defar naa ko mais ñuy toog rek di xaar di xaar ba occasion bi jot ma ne comme projet bi nii la demee ki ko war a mën a way fi mu ne nii mooy mooy euh, Ami mm-hmm, mm-hmm. moo ko war a mën a way ma woo ko tamit vraiment fekk sax mu nekk si tiis moom ak biram ndax mm-hmm. seen way ju dafa wàññeeku euh, mu nekk moment boo xamee ni ko si ma ne ko àdduna noonu la ndax lii la yàlla wan tey te mënu leen si dara xëy na tamit misaal la jógal jógaatal ma a ko jógaatal euh, nga ñëw way participer ci projet bi wayu morceau bi xëy na lii sa way jur bi wàññiku ak lii nga jógaatee nii yàlla mën na laa taxawu ba nga xam ne sa carrière fi mu war a nekk mu nekk fa loolu moo tax ñu indi fat euh, Ami Collé moom tamit bu concentré wu quinze jours wax naa moins pas moins de quinze jours biram jàppale ko bu baax mu jàng way wi ni ma ko tegee woon si si yoon bi mu jàng ko ba mën ko ñëw ne ma pare naa ko ci la ko woy te noonu la ko defee moom itam fekk nañ ko studio moom euh, Ami Collé keroog bi nga xam ni euh, xamee ni yéen a ngi togg bi nga xamee ni moo di Sidi Anta Ndiaye ca kanam euh, daañu waxtaane ajot Fat Thiam Samb El Hadj ndax moom itam ca tàkku saan ba tey ma nga toog ak njabootam di seetaan télévision Futur Média ndaanaan gi mu doon itam kenn dootu ko werante Ami Collé naka la toogee liggéey ak magam président Youssou Ndour laataa muy dugg si ci plateau bi ñu won leen la ñu jëlee keroog ca studio ba sama Mbacke mi ci naa saanja galas nelaw naa Fallou awa Bousso nga Touba galas nelaw naa Cheikh Abdoulaye Mayit ba bàyyi mayeg Cheikh galas nelaw naa Cheikh Bambaye maami danak Cheikh galas nelaw naa voilà moo gën nga commencé ko moo lay gën a yombal wala non wala nga commencé bële Sidi Anta Ndiaye Sidi Anta Ndiaye loolu euh, keroog la woon ca studio ba te gis nañu. Euh, ni nga ni nga leen di yoon mi en fait. Mhm, mhm. loolu mooy loolu mooy daaneel daanaan El xam nga Pape Cheikh ndaanaan dëgg bu dee nelaw boo ne ko pëkk pëkk rek bu jógee mën naa mën a way te ndaanaan moromu ndaanaanam da koy da koy daaneel moo tax dëgg dëgg bi xale ah. am lu mu yëg da ko daaneel am lu mu yëg wallaahi wallaahi borom moom woy nag ku baax wallaahi kan eh, Cheikh dëgg dëgg Cheikh Gaynde Fatma kooko meññ kan moo meññ moo meññ sëñ Mbàkke Soxna Lo lu ko Youssou waxoon moo ko waxoon ne loobe borom ndar ndeeg ak njàmbaas sambita mam sëy jom mi yondoo daw raas ñoo jom yondoo daw mbir ma yendu fa yendoo naan bay sax kodu Samba ak Fatma ak Joor juróomi lingeer la saaxee soxna mbay seen bàyyi tudd saaxee soxna mbay mbiru saaxee Fatma ku lu ko dugooñ daw càmmañal lingeer yi ba mu ko wooyee àddina xaw na yëngu biir si mm-hmm. keroog danoo mbay eh, <laughs> eh, <laughs> kooku la ñu ne woon mooy euh, taaw ca ndam tafsir ca Gédé. Mhm. Serigne Cokko kii di Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne euh, Youssou Ndour. Mhm. ami Collé nag ci boppam moom mooy dugg si léegi euh, fekk suñu ci plateau ndaanaan laata mu ñu woowel Sidi Anta Ndiaye ami nag Sénégal yëpp fonk ko donc moom mu ngi. Euh, ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga dem toog ci sa wetu ay càmmin ndax ñoom ñëpp ku ci nekk la ma wax sànq rek laay waxaat fexe nga euh, ba dégg ndaanaan euh, Youssou daf ci am keneen koo xamante ni moom nga dafa tukki. Mhm. di Bouba Kirikou. Mhm. moom nag ca ba muy xaleel ba tey ci nga ko dooleel. Mhm. defe naa ñun dañoo nekk xale ñee ko nag. mu am chance c'est vrai ah dañu ko ñeewoon lool parce que euh, ba muy woy kiriku am chance su jege ku mel ni yow mu won ko yoon wi loolu defe naa joué na lu bëri ci carrière ñu dem nag ba fàttaliku 2015 nga tànn ko ngir mu bokk ci artistes yi bokk ci fàttaliku 2015 bi lu tax Bouba Kirikou. waaw li tax Bouba Kirikou l'histoire s'est répétée. Mhm. histoire moo dellu si waat. Mhm. ndax euh, euh, Bouba Kirikou moom. fii la ne woon sax. daanaka studio bi nekk fii. ñuy defar film Kirikou. ba way bi pare ma defar ko ba pare man leen duma ko way. ñu ne ma ah waaw man leen duma ko woy producteur bi wax ma ne ko damay dem jëli xale boo xam ne kenn xamu ko. Ah ñu jéem ko wan woy bi. Ah loolu moo indi mu way Kirikou. tur wa topp ko <laughs> léegi bi ma demee ba nga xamee ne ko fàttaliku nag pour euh, échange la ak les artistes yu kii mhm. ma xalaat ko ci benn morceau boo xam ne dama ko bind bii nag moom dama ko bind mhm. muy euh, morceau boo xam ne sama diggante ak Casamance la mhm. muy diggante euh, Agen ak Jambo xam nga boo gisee ñaari bateau yi bërki démb ñu inauguré ñaari sœur lañu yoo xam ne que ñi ngi séparé woo ci Sangomar ci foofu kenn ki jàll dem booru Fatick. Mhm. ah kenn ki jàll dem booru Casamance. Mhm. loolu moo waral sax même ci accord de paix yi gis nga ni gars yi dañuy dem Foundiougne daje fa. Mhm, donc dafa am symbole bu mag boo xamante ci ñaari sœur yooyu. moom moo indi ñaari bateau yi. ñu bind ci nag ay valeur Casamance. bind ci. li nga xamee ni loolu la Casamance représenté. Mhm. ak beauté bi. Mhm. pour attirer encore nit ñi ñu dem vers la Casamance. parce que mhm. Casamance ci Sénégal la bokk. Casamance lu ñu war di dundal la. Casamance lu ñu war di désenclaver la. muy way boo xamee nag mu ngi ci ànd ak. Mariama. Mariama bi bii ànd ak di way ak kii. Euh, kii lay waye ndool euh, chanteur bi dëkk Kolda. Dabi Dabi. Uh-huh. moom lay wayal. Uh-huh. Euh, mu ñëw ànd ak Duba Kiriko ñu way morceau welcome voilà. mën a way waaw dafa mën a way dafa am na am na sentiment am dafa am sentiment euh, euh, moom moom hmm. moom euh, Bouba ci boppam ma nga dëkk bu ñu naan kanada ci ndaanaan gi ma doon rek ak sob ak jumtukaay xarale yi nga xamante ni hmm. man ak ñu ma àndal yore nañu ko ndax bu ngeen seetloo lépp a ngi ci li daal waxande laa ko tuddee élage lépp laay dugal fii hmm. waaye fexe naa nag ba Euh, lijjanti numéro Bouba Kirikou ca dëkk ba mu ne ah bon voilà <laughs> euh, Bouba moom la ñuy euh, jéem a jokkool rapidement laa ma leen di won li nga xam ne jëlee nañu ko keroog ca studio ba bi nga xamee ni woy na. ak euh, euh, li ñu ko bindal ndax nag euh, woy bi buubaa woy moom rek mooy lu bees tàq ci ci ci fàttaliku 2015 parce que moom li ñu considéré mooy fàttaliku mooy Casamance la ñuy fàttali uh-huh. moom mooy fàttaliku mais musique bi moom lu bees la voilà donc buubaa ñu ngi lay nuyu mbaa nga yendoo wala moom nga xëyee ndax dëkk ba nga ne defe naa heure yi bokkul ak bu senegal sama mun a sama papa la benn parce que. Mhm. Euh, papa la ci man parce que bi may xam maa ngi nekk xale. Mhm. comme ni ko nekk xale yi aussi sama mbokku artistes yi fa toog. bu mhm. baax dégguñu ko dégguñu ko bu baax xam naa na mut euh, na fa mu nekk euh, fa mu nekk sori rek bu fekkee mën nañu ko yokkal wala moom itam mu yokk euh, baat bi hmm. euh, bu ko defee ñu mën a dégg li nga xame ni euh, moo ngi koy wax bu bàyyi ak ñuy dégg waaw maa ngi leen di dégg voilà mu ngi doog a mën nga delluwaat defe naa ci kàddu yu nga dooree léegi nii waaw waaw ma ne ma maa ngi maa ngi maa ngi rafetlu li ngeen def nii woote bi maa ngi rafetlu aussi gis ki nga xamante ni mooy Youssou nga xamante ni je dirais maanaam moom c'est c'est une longue histoire. comme ni ñu ko waxee léegi dafa yàgg depuis depuis quatre-vingt-dix-huit. Mhm. donc euh, yàlla dogalaat en deux mille quinze. Mhm. ñu ñu ñu liggéeyaat ci li nga xamante ni mooy album euh, Fàttaliku deux bi. di ko rafetlu bu wér. mais mhm. aussi di di nuyu bu baax euh, artistes yi nga xamante ni ñu ngi fa toog. di di nuyu des spectateurs ndax mën nga ñu euh, nettali rek expérience bi ci euh, fàttaliku 2015 duñ ne guleet de sa liggéey ak euh, Youssou Ndour ndax wax nga ko léegi moom itam mu fàttali ñu ko te defe naa ñu nit fàttewuñu ndax fàtte xaju fii ci sa digganteek ak moom ca Kiriko la woon ba tey mais li nga xamee ni way nga ko mu nekk hymne pour Casamance mais hymne itam pour Sénégal noo dundee expérience boobu. waaw bon expérience boobu moom xam nga je veux dire tey ku mel ni Youssou. Mhm. Euh, boo amee chance si sa ci sa carrière. Euh, mhm. di ko côtoyer. je mhm. pense que ni dañ dañ ci war a sant yàlla bu wér. c'est c'est comme tey benn américain bu am chance di def musique yàlla boole ko ku ñuy wax Michael Jackson. wala nga nekk benn jamaïcain mu m chance yàlla boole ko ku ñuy am Bob Marley. donc su ma amee chance ma nekk fii Canada. di yëngu ci musique mhm. donc ba mu ci téléphone am woo ma ne ma daf ma soxla pour ma ñëw Sénégal pour ñu liggéey ci loolu mhm. je pense ni lépp li may njëkk def mooy dàkk biee ñëw taxaw ci loolu def ko mhm. ni ñu ko war a defee donc surtout moom na ci kontaan et puis man ma ma ma teguwaat ci yoon bi ñi ngay gagné ci expérience moo ci moo ci ëpp solo parce que euh, après tout c'est Youssou Ndour voilà mm. <laughs> ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di la di la féliciter. Dakar euh, Canada euh, nga nekk Youssou gi Dakar mën ngeen wax directement. Eh. waaw waaw Boubacar ça va. nice merci en tout cas jërëjëf pour. tout euh, le effectivement yow projet bi si yow la njëkk a commencé. Mhm. te bi ma la ko waxee da nga bàyyi lépp nga ñëw nga taxaw waaye maa ngi la si remercier morceau bu am potentiel la nag. wax naa la ni que morceau bi mun nga ko jël. Mhm. yow sax utiliser ko pour sa album. Mhm. parce que morceau bu am potentiel la te foog naa ni Sénégal dañ ko gën a découvrir. Mhm. tu permets aussi à la Casamance euh, d' avoir une chanson référence. kon maa ngi lay gërëm di la sant bu yaboon na nga parce que léegi nga ñëw. Euh, ndax dañu promotion bi incha allah dinañ ko continuer ni muy ni ñu ko commencé ni noonu laa bëgg ngeen continuer ko. te il faut que nga nekk fii. aussi booy ñëw fi nekkaale. en tout cas merci pour tout. Euh, yow da nga bokk si artistes yi nga xam ne yéen a li may tuddee euh, musique africaine moderne. Mm-hmm. ay ndaw ngeen yéen a ngi juddoo ci capital yi. tu vois xamu leen euh, yenn euh, soroyaayu réew mi. Mm-hmm. mais yéen li ñuy tuddee ay boy town ngeen <laughs> donc euh, li ngeen war a incarner moom mooy euh, urbanité bi uh-huh, uh-huh. mooy ville yi uh-huh. Dakar Abidjan yow moom ci représentant yooyu nga bokk donc maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal euh, séjour jàmm foofu ci Canada foofu moom la basé fi mu ne nii actuellement mais foog naa ni que artiste amul fenn fu mu dëkk musique am rek moo ko fay dëkkale merci Bouba ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf Pape Cheikh jërëjëf waay ñu ngi lay lay gërëm donc mu ngoog euh, moom nag euh, ba tey rek ci euh, fàttaliku defe naa ni nga ko waxee léegi moom mm. tuusu xale bi la ci indi ah tuusu tuusu urbaine bi te loolu tam dafa am solo comme quoi mag wala xale. Mhm. Euh, jot na nag ñu euh, consommer nag li nga xamante ni ñun ñoo ko moom te loolu dafa feeñ euh, ci fàttaliku 2015 bi. waaw waaw dëgg mooy dëgg rek. albumu albumu génération yëpp la génération yëpp la. waaw te xam nga boo boo seetloo sax américains yi dañ koy def. Mhm, mhm. les jeunes rappeurs là. ay chansons yu am cinquante ans la ñuy reprendre léegi. di ko delloo siwaat. donc vraiment génération yëpp xaj nañ ci. génération yëpp xaj nañ ci moo tax ñu dugal ci. ñi nekk côté urbain. ñi nga xam ne un peu plus poussé vers actualité bi mhm. ak ñi nga xam ne dañu nekk banlieue mhm. xam nga boo xoolee choix bi daal mhm. nga xam Sénégal la ñu teg dafa yaatu voilà ah, am nañu am nañu am nañu Podor am nañu Ndar am nañu Thiès am nañu Jolof am nañu dëkk yëpp te loolu moo ci am solo defe naa léegi El Hadj Mane Mbaye Garmi ak suñu xarit yi nga xam ne ñu ngi seetaan euh, ibbil nañu leen téléphone bi nag ndax yéen a ngi wootee fu ne yoon la ndax nii rek la ko bëggee euh, ci euh, jotaay bi le nga xam ni moo di ndaanaan ki njëkk ñëw nag uh, woyal ñu woyam mu ngi fii ci uh, fàttaliku 2015 mm-hmm. kooku mooy Pape Laye Mbaye mbay Hadj Man Mbaye Garmi xam naa ni bu woyee dina la fàttali keroog ba ñuy rendre hommage baayam ba mm-hmm. bi nga xamee ni ajot xaar bay ma jaaga way mm-hmm. ak uh, ki nga xamee ni moo di Samba Jabare Samb Baba Maal taxaw Youssou Ndour taxaw ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo daanu xam nga foofu yaa ngi dégg xaar naan ey eh, mbay xaar da may bëgg a rey waaw booba woy wi ni mu ko def mm. xam nga way moo tax bu ñu ne Ami Collé mën na way dañuy dañuy d'accord. Mm-hmm. dafa am gaam yoo xam ni. Mm-hmm. ci njolli ak mbaar ak mbëpp ak mbëfër ci la ci la ci la nekk. Mm-hmm. buñ la ko jàngalul ci biir way mën nga. loolu nag moo daal xale bu jigéen bi toog. xaar nag foofu. bi Samba Jabare yuuxoo. njagam ba yuuxu. mu yuuxu. dafa jàpp dënnam. Ah. nee mbay a rey wallaahi boobu am na lu mu yëg mi mm. ngi nuy tey mi ngi mi ngi nuy seetaan mm. daal dëgg-dëgg li Youssou def mm. kontaan na ci loolu kon bu ngeen dégloo léegi euh, euh, président Youssou Ndour ak suñu xarit yi seetaan Fatou Waré boo jógee euh, nga feccal ñu kii ñëw woy léegi mu ngi tudd Pape mbay Mbaye way wi nag baayam baa ko woyoon ñu déglu ko mu woyal ñu ko bu ko defee ñu mën cee bànneexu tey jii ci télévision Futur Média waaw loolu nag am na ay coppite yoo xamante ni dinañ ko dégg sax ci ci texte bi bi waaw dañ ko bindaat mu mu méngoog jamono ba ci ba ci bi sax dafa dafa gën a méngoo ak ak léegi lañ ci wax sëyu léegi xam dafa bari problème waaw waaw waaw sëyu xale yi mu ngi ci naan bu leen ci génne mag mag bu leen leen ci génne moo ndax mag dégg naa mooy gis lii raam jëm ci ñag bi waaw loolu lañ ko bari na lu fi taxaw mag ñee ko téye moos ñu dem ci way wi ak euh, Pape Lay Mbaye way wi nag mu ngi bokk ci album bi di fàttaliku 2015 déglu leen tey euh, li nga def nii mu bokk ci album euh, fàttaliku ñu bàyyi la nga wax ci rek euh, sa sa xalaat sa bàyyi ba ko woyoon li ñu wax sànq rek ni suuf moom mën naa lekk lekk yax waaye fi lay bàyyi jëf mhm. suuf mën lekk lu waxtaan fi lay jëf mhm. te kii bàyyam mhm. àddina dañ ko doon sentir waaye nag loo nekk te bàyyi woo ca dono bu yàggee mën na naax saay kon nii ko Youssou defal àddina yëpp la ko defal waaye tamit dëgg-dëgg ci kaw góorgóorloom la ndax baayam alaaji alaaji Baye Cheikh bu ma saana way dañu xam ne daanaan pire way kooku nag dëgg-dëgg am na nag am na nag loo xam ne lii war na ko yokk bu baax a baax ndax loolu mooy tax yëf jëm ca kanam waaw Pape Laye wax dëgg la Pape uh-huh. euh, di sant yàlla bu baax a baax a baax uh-huh. di ñaan yàlla aussi tamit euh, ki nga xamante ne bii moo waral lépp muy suñu waajur woow góor. Mhm. di ñaan yàlla fee mu tëdd gënal ko fii mu jóge amiin amiin euh, kii fi des di suñu waajur juru jigéen tamit yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam ak kanam ndax mhm. lu ñu am moom la. Mhm. Pape Cissé maa ngi koy wax ne ko man d'habitude du may dugg ci lenn te diisoowuma ci ak sama yaay. mais nag comme moom sama nijaay la te xam na ni mu demee ak sama yaay. kon jarul ma koy woo di ko wax leen moom lu ma sama yaay mën a defar rek moom mën na ma koo defar. Euh, di ko remercier bu baax tamit. Mhm. di ko ñaanal yàlla tamit. Mhm. ah du ma uma xam-xam boo xamante ne bi xam naa li ci xalaatam. li ci mhm. moom mais xam naa ne Sénégal moo nekk ci xelam. te xam naa ne mën na koo am. te bu ko amee tamit fierté sénégalais yi lay doon. di ñaan yàlla moom it lépp lu mu bëgg rek yàlla jàppale ko ci ba mu am lu koy njortam. amiin di féliciter sama nattango yi ma àndal aussi. lii nag day loo xamante ne bii. Euh, occasion la pour ñun tamit. Mhm. boo xamante ne bi yaakaar naa ne moom biñ ciy nekk tamit. Mhm. du woon koo xamante ne bi daf ñu imposer ne moom mooy Youssou. boo ñëwee da ngay gis da ngay tamit à l'aise mhm. da ngay li ngay def da nga koy def ak da ngay firi. pour wane ne moom amul problème boobu. daanaka dañu koy bàyyi ak liberté jàpp la ñu bu baax a baax a baax kon yaakaar naa ne. Uh-huh. Euh, li mu def lool rek la war a def. Uh-huh, uh-huh. moom rek la war a def. donc kon di ko ci jaajëfal tamit. jaajëfal <laughs> franchement. merci beaucoup Pape Laye euh, président loo koy wax. li ma la encourager. Mhm. waaw macha allah li nga am dafa jafe. Mhm. waaw yow euh, sa waajur dafa def way lu ne. Mhm. ah c'est l'un des plus grands compositeurs de ce pays. li mu composé teg fi du deñ téere la. donc euh, loolu avantage la mais aussi lu diis la. donc na nga gën a góorgóorlu. Euh, talent bi moom yàlla def na ko ci yow. Mhm. Ah. donc góorgóorlu bu baax a baax a baax jàpp ci promotion bi taxaw bañ a yàkkamti. Mhm. te évoluer. Mhm. xam aussi ci régistre bi ngay yëngatu. Euh, sa papa daf daan euh, yëngu si registre traditionnel vraiment boo ko bëggee làlloo moderne dafay du du du du du bare. lu ñuy laaj ci ci ci modernité. ci njagambay du bare xoolal morceau yi touché. si ak orchestre moderne. Mhm. boo ci doon wax du bare. Mhm. boo doon calculer rek ne ba yan morceau Ndiaga Mbaye la ñu kii xam nga morceau même bi ma woyee ak moom. Mhm. instrument yi tuuti la. yóbbaale ma. bi Cooma euh, Sayer tëgg ci Sorano. amul guitare. instrument yi bëri wuñu. voilà instrument yi moom dafa doon choix mi yooyu la. donc yow da am pour respecter choix yooyu. donc léegi musique évoluée na c'est vrai que musique moderne la ñu wax mm-hmm. mais da nga war a garder aussi ah. lële donc yow situation bu xaw a jafe nga nekk si concevoir affaire bi donc maa ngi lay encouragé euh, nag am na lu nekk ci boppam macha allah euh, am na lu mu donn waaye jàng na àdduna très ah, donc nga góorgóorlu bu baax a baax. Ah, parce que ndeysaan moom sama sama sama sama xarit la sama sama sama mag la aussi. garmi ah. yu bëree bëri yu muy def daf ma ciy woo ba ci congaan boobu muy wax. tamit euh, suñu tonton la suñu xarit la. te tamit xam nga li ñuy wax naan. Euh, jàmbaar joo gis rek am na ku ko dooleel. Euh, muy sama soxna tamit. parce que jamono bi ñu toll nii dafa am foo xamante ni boo fa nekkee. di daw vie quotidien ak yeneen ak yeneen. Mhm. bu la yàlla joxe soxna soo xamante ne bii dalal na la. yu bari mu noppal la ci. Mhm. kooku tam boo tollee foo mën a toll war nga koy. delloo njukkal. Mhm. kon muy mi ngi Ziguinchor actuellement nii. Mhm. mi ngi may seetaan. Mhm. ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ca kër ga. nga xamante ne bii. njaboot gi daal njaboot gi la te xam naa fi nga xamante ne bii fa la bëggoon a yóbbu njabootam moom sam pap donc sama yéene mooy. fa mu bëggoon a yóbbu njabootam te yàlla xëy na àggale ko fa. yàlla jox ñu ko ñu. incha allah incha loolu mooy suñu ambition loolu mooy suñu yéene. ñu ngi lay féliciter et puis di la wax rek bonne chance ci fàttaliku kooku mooy Pape Laye Mbaye wayu nag mu ngi nekk ci euh, album bile fàttali ko 2015 ca kanam ma jox leen nan ngeen mën a def euh, ba euh, téléchargé ko ndax wayi benn bu ci nekk mën ngeen ko téléchargé mm. la ca am solo itam mën ngeen a am album yi ci point de vente yi fu ci mel ni buntu RFM ak fii ci buntu télévision Futur Média yéen ñi nga xamante ni yéen a nar am chance ñu may leen ci mm. ku woote léegi bu ñu ko mayee benn album yu Ndour ci boppam moo la koy dédicacel bu ko defee ñu jox la ko ndax loole mooy particularité bu fekkee fekkee a ngi ñu doog a dab ñu ngi àndandoo ak yéen ca saan ba tey euh, ci télévision Futur Média tey nag ndaanaan la bu spécial ñu waxtaanee euh, fàttaliku 2015 euh, histoire bi 2014 la commencé woon ren nag ñu tànn ay xale yoo xamante ni ku ci nekk ndaanaan nga bu ñu jógee léegi ci Pape Lay Mbaye dañuy woo keneen muy Abou Thioubalo moom nag moo ñu woowee léegi Cheikhou Tall bu ko woowee rek ñu mën a apprécier mm-hmm. ndax xam naa ni la mu woy ak ka mu woy jar naa woy ndaanaan way na Baye Cheikh mooy Abu Cubola Cubola nag yàgg na ci way ndax ci taatu tefes gi ci la mag gi mooy lébu ci tukulóor mu way nag ku mag Cheikh Oumar neex a way lool nga xam ne nii bu ko woyee alpulaar yëpp dafa am lu ñuy yëg moo tax sànq bi ñu si tuddee Casamance uh-huh. Casamance rek tubaarkàlla bu ñu ko bu ñu ko joxul gëdd bi ñu ko war a jox uh-huh. war na mën a dundal réew mi uh-huh. ñu dem rek ak ak nag sunu xare abu ci bola ayca dem ci bokk léegi. l'islam bi Seexu Taalu mu fi atal diini l'islam bi Seexu Taalu yàlla yàlla fay la sa yéene yéen waa axlu islam sant leen Seexu Seexu Taalu jaarama daf dafuude jaarama Seexu Taalu jaarama Seexu Taalu jaarama sant leen seen na loolu neex na loolu neex na ah Abu Abu Abu Thioubalo euh, yow tamit euh, ñu ngi lay euh, ñu ngi lay féliciter ci sa participation ci li nga xamante ni moo di fàttaliku 2015 Cheikhou Tall waaye yu def lu nuru. <laughs> ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay féliciter bu baax loo ciy wax. ñaan sama papa yàlla ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana amiin amiin képp ku jóge <laughs> di gërëm li nga xamante ni mooy suma base bi waa Pikine uh-huh. képp ku yow fii uh-huh. maa ngi koy uh-huh. nga xamante ni ñoom ñooy uh, uh, mi nga xamante ni ñooy yëngu ci kala bi yoon mbii mi mbii maa voilà yi ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci naa Mohamed di gërëm suñuy waajur di ñaan suma yaay yàlla na yàlla ko yàlla bàyyi yàlla na gudd fan am wér gu yaram mm-hmm. di ñaan ki nga xam ne mooy sama papa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mm-hmm. ak képp koo xamante ne jóge na fi di gërëm suma baas muy waa Pikine ak képp koo xamante ne yaa ngi yow biir Sénégal di ñaan yàlla mm-hmm. Sénégal yàlla na nekk eh, dëkk boo xamante ne day sax ci jàmm saa su ne inchallah bu loolu weesoo it mbaɗan salmina kala mbiyo mbimi mi e mbimami parce que xam naa ne Youssou Ndour soxla lu mel noonu waaw ndax kenn mënuñoo ci Sénégal ndax way Euh, fierté la si képp koo xamante ne daan mbii mi et mbii mhm. ak mbii maa boo ko déggee mooy dama ni ak dañu ni ah. hmm. mbii mi ak mbii maa mi képp koy wax rek mbii mi mbii maa waaw loolu neex na kay waaw comme li comme comme li yàlla def biir Sénégal Cheikh Omar Foutiyou Tall doon koo xamante ni mhm. moom moo indi diine gi fii mhm. rawatina ci Afrique Youssou woo ma ne ma abu ñëw la bi ma ñëwee ñu ngi tooñante li ma gën a marqué lay wax nag tey li ma gën a marqué mooy da maam dañoon tooñante ci studio bi <laughs> mu mel ni benn abu ci bolo buy wax ak benn moroomam <laughs> sérieusement dëgg dëgg moo neex yàlla quoi léeg-léeg sax ma tooñ ko ko mais grand yow yaa ngi seetaan dañu ci biir teel bi bu mu toll nii te ko waay <laughs> mais bi la ma ni il faut nga Cheikh Omar Foutiyou Tall mhm. bi ma ko waxee man bëgg ma ci bëgg rek ak bëgg koo def tax na ma dem di laajte ji li mhm. ma demee laajte ji ci Cheikh Omar Foutiyou Tall wax nañu ci moom yu rëy mais li lay wan Youssou Ndour nit ku ah, nit nit ku oyofal léppam la quoi moo tax yàlla teg ko fi mu ko teg mooy kat dafa ma wax ne ma abu kenn ku si nekk da war a jël li nga moom bàyyi ak ñeneen ñi leen moom parce que ko naa mu ne ma gisee li ngay laajte la lu ñu xam la te lu ñu xam la lu ñu war a xamal nit ñi la mais kenn ku si nekk andul la yàlla dénk il faut nga bàyyi ak loolu ñi nga xamante ni ñoom ñooy waaraatekat yi mais da ngay way way mu simple yàlla def ma way way way simple bi ma ko dégloo sérieusement parler gisuma ci man sama bopp man bu may woy commencement bi damay jàpp ne Youssou ay woy ba fin bi Youssou la parce que da ngay woy sax yuuxu man ku ne xam ne damay yuuxu ca kaw ma ñëw mu ne abu da ngay wàccee sa baat ci suuf may wàccee affaire bi di neex nee la ma déglu ko affaire bi di neex ma ne waaw mais lii lan la xanaa dañ maa pooseel baat ba wala affaire bi gën a jox ma ko ma dégluwaat mu gën a kii te man bi ma jox sax misee guñ ko moo tax sérieusement parler dañ koy gërëm te yàlla rek ndax Sénégal bëri na ay nit bëri na waykat mooy encadrement mais da ngay imaginer Pape Cheikh uh-huh. imaginer 2009 laa génne album uh-huh. benn album laa génne muy solution la ma ci ndox wax yëpp Youssou Ndour wax ma ko moom xam na ma xam naa ko uh-huh. bi ma koy way daaw na gisee mais dama toog rek xalaat ni kii def na fi loo xam ne kenn defu ko mhm. mais kenn def na fi loo xamante ni Youssou Ndour defu ko mhm. mais ku ne li la yàlla woon ngay gis mhm. imagine toi euh, mondial 98 laa waxoon Sénégal demul mondial kenn xamuñu fenn ñu jamono jooju jooni Ali mi ngi dund ah. ñoom Michael Jackson mm-hmm. ku nekk ngi bàyyi ñëpp ne ko bi <laughs> ci lay woy naan rajo bu neexee day tas wax nga ko bravo ah. wax ci sa waraloon wax nga ko ci sa ci sa woy yaa dem ba bitim réew uh-huh. dekkal fa sunu wax nga ko wax nga ko ci sa woy euh, président euh, appréciation ci hmm? euh, li abu Touba waaw xam nga moom il est chaud il est hmm. chaud hmm. bien son côté là xale bu naturel la bon xam naa ne formation ak euh, li muy dund. Mhm. donc xam naa ku ku am relation publique bu nice la. Mhm, mhm. ak ay xaritam ak yooyu ak zone bi mu dëkk. xam naa ne il est très impliqué. xamuma détail mais wóor na ma. donc euh, il a la voix macha allah. Ah, bi ñëwee tamit ci studio bi waxtaan nañu bu baax a baax a baax. mu interprété li mu waroon interprété ma wax ko ni ko aussi. Euh, ñun li ñuy wax daf ñu wóor tuuti. si wàllu musique. donc buñ la nee jaaral yoon bi rek. mën nga fa jaar. yàlla mën def. gis nga da ngay gis nit ki mu taxaw nii. Hmm? bon def li muy def ñu tudd ko. fekk li ne ci ginnaaw. kenn xamul nu mu toll. wallaahi wallaahi album bi rek li nekk ci ginnaaw ñoo xam ne gisuñu leen. Hmm. ñii la ñu gis nii mais ñi ñu gisul ñoo ñoo ëpp hmm. waaw c'est important moo tax. Euh, abu je crois que ni ñëpp kontaan nañu. Mhm. dégg la. Mhm. nga way euh, ku tedd kii. Mhm. nga xam ne que comme ni nga ko waxee. moom mooy promouvoir l'islam ci suñu zone yi ak zone yu bare. depuis Algérie jaar Maroc ak lépp. donc euh, wax nga wax ju am solo ci way wi. way nga ko teg nga ko ci yoon. léegi nag voilà dekkilaatal affaire yi. su ko defee dekkilaat affaire yi moom mooy morceau bi. na nga ko def promotion ba mu mot sëkk mhm. waaw ndax neex na nit ñi dina neex nit ñi mhm. donc donc mën nga koo jouer mhm. nga commencé nag xam nga album bi tamit dañu bëgg mu am promotion mhm. nga taxaw ci promotion bi incha allah lépp dina baax mais xale bu am talent la xale boo xam ne am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax te background bu mu amee baax na trop te neex naa àndal boo ko waxee ñu war koo gëm waaw neex naa félicitation Abou Thioubalo bi mu ngi bokk ci album bii di fàttaliku euh, ñu ngi leen di waaj a jël euh, a bi euh, mën nañ leen ko livrer à domicile loolu moo ca neex <laughs> boo wootee ci numéro bi nga jënd ko ñu indil la ko ba fa nga dëkkee ndax xam naa ni nag euh, muy solidarité bi ñu waxtaanee sànq hmm. lépp loo xamante ni am nañ ko ci euh, dañ ciy jàppale hmm. ay ndaanaan yoo xamee ne ku ci ne dafa am loo def ci réew mi hmm. wax naa ni sànq yàqu ñu ngéwél donc numéro téléphone yi pour jënd album bi ma jox leen ko bokkewul ba tey ak numéro yi ngeen ñu jotee ah. en direct tey ci ndaanaan numéro bi 24 heures sur 2015 ñu indil leen ko euh, loolu nag di 77 euh, alors 77 182 20 82 moom laa bës nii euh, ci écran bi ngeen koy gis en même temps comme vous le voyez donc da ngeen di woote ci 77 182 20 82 maa nga toog noonu jege eh, président yu Ndour keroog bi ñuy man tamit <laughs> demoon naa. Eh, El Hadj Man Mbaye Garmi loolu bëggoon naa ko woon waa Sénégal man tamit demoon naa. waaw euh, Baye Cheikh promotion du doy. demoon naa waaw. kon na dem à gauche. <laughs> man tamit demoon naa donc fekkee naa daanaka secret yu bëri euh, yu nekk ci album bi di euh, ndaanaan moo tax ma mën cee wax kon numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi pour yéen ñi nga xamante ni yéen a ko bëgg a jënd mën ngeen ci woote man ngeen def itam 33 868 13 32 868 13 32 bu fekkee itam yéen a ngi bitim réew bëgg koo téléchargé euh, turu artiste bi ngeen di jël rek. Mhm. ngeen yónnee ko euh, ci 26 500. par exemple bu dee Sidi Anta Ndiaye ngeen bëgg am seen téléphone portable par exemple euh, da ngeen di jël turam AMI ami ngeen di yónnee ci 26 500 voilà mu ngi donc bu ngeen bësee ami. AMY ngeen yónnee ko ci 26 euh, 500 euh, immédiatement di ngeen am euh, woy bi nga xamante ni moom la woy ci album fàttaliku 2015 bu fekkee da ngeen bëgg Cheikhou taal bi ñuy déglu léegi turu abu rek ngeen di yónnee ci 26 500 abu hmm. a b ngeen yónnee ko ci 26 500 su boobaa di ngeen mën a am way yi nga xamante ni mu ngi ci fàttaliku 2015 bu dee da ngeen bëgg sëy Pape Laay Mbay bu ñaga Mbay moo ko woy ci fàttaliku 2015 moom itam turam ngeen di yónnee euh, ci vingt 26 500 bu ko defee ngeen am woy wii ci seen i téléphone portable mu nekk sonnerie téléphone El Hadj mbay gar mi bëgg na loolu woy nag euh, bu ñu demee ba mu nekk daanaka hymne national nag ku yebu rek am ko bu la neexee nga télécharge ko bu la neexee itam nga jënd ko bu la neexee nga yónnee message ak sa mhm. téléphone portable am ko def ko sonnerie loolu moo neex ci fàttaliku 2015 ndax album bi yëfi démb la mhm. waaye méngoo na carrément ak jamono xam nga nit day fonk cosaanam pap te bëgg ko mhm. man sama san lafu léegi sonné dama ci def njàng waaw <laughs> boo màggee bar sa daar <laughs> uh-huh. <laughs> Ablaye Naar way uh-huh. nit day fonk uh-huh. loolu nag moo war a dal Abdou Djibala mii li fi alpulaar dafa bari mhm. te Cheikh Omar maamam mhm. moo xeex jiyaar gi wallaahi mhm. kii mu woy su ci sukkandikoo rek ba promotion bi jàll mën naa jur lu bare bari wallaahi wallaahi moom rek moo am jaasi islaamam wala mu ak kooku mooy Cheikh Omar Fouti kooku nag dëgg-dëgg moom tamit naa ko ci lancé ci loolu mhm. waaye daal Baye Cheikh mhm. lii Baye Cheikh wax ni daal sonal yi yëpp mbay mhm. kenn waru ci dégg ay ay yeneen yeneen i rab fii rek lañ ko ci réew <laughs> ci suñu xarit yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo dégg léegi woyu buubaa kii dukub bi ñu jagleel ko Casamance euh, tugleel ko tuddee ko welcome to Casamance boobu itam euh, mën ngeen ko am sonnerie da ngeen di yónnee rek message yi ci 26 500 bu dee yéen a ngi bitim réew itam ngeen bëgg a télécharger ci internet bi c'est très simple adresse internet baa ngi nii euh, ci suufu écran bi itam muy www.senetunes.com euh, boobu itam di ngeen mën a am woy yëpp euh, léegi nag président Youssou Ndour li ñuy def mm. xanaa laataa ñuy déglu Ami Collé mu woyal ñu Sidi Anta mm. dañuy may nag suñu téléspectateurs yi quand xam naa ne am nañu ay questions parce que ba ci Facebook bi mm-hmm. ci réseaux sociaux yi ñu ngi réagir uh-huh. di yónnee seen ay commentaires ñu ngi leen ci sunu xarit ci woote itam mën ngeen poser ay question euh, ci téléphone bi ngeen wax ñu seen xalaat ci li nga xamante ni euh, moo di euh, fàttaliku 2015 et puis bu ñu amee jot fileek ci kanam daañu liir seeni i yi ngeen ñu yónnee ci Facebook bi adresse baa ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi tey nag El Hadj hmm. ndaanaan bi dafa teel a ala daw me te xam naa ni yéen ñi seetaan itam yéen a ngi koy dundee noonu mën ngeen itam bu émission bi jeexee ngeen amaat photo yi ci site Dakar www.dakarnedortpas.sn wala ci gfm.sn euh, parce que euh, ñaari site yëpp yónnee nañu seen ay reporter euh, muy ki nga xam ne ni moo di Ndiol ak Pape Lam ñu ngi leen di gërëm ndax ña nga ca ginnaaw kon ñu xool ku nekk ci téléphone bi léegi nii bu waxtaanee ak ñun ba pare Youssou Ndour ci boppam dina ko dédicacel mhm. fàttaliku 2015 allo. allo. kooku. allo Pape Pierre. waaw. na nga def. ñu ngi sant bu wér. ça va maa ngi leen di ziar bu baax bu baax ci bi. ñu ngi eh, delloo ziar. Eh, di nuyu sama nijaay Alaaji Modou Mbaye Garmi. jërëjëf maa ngi lay fay doom. di nuyu mm-hmm. ngi lay fay. di ko ziar bu baax a baax. Mm-hmm. di woote. ci de la mm-hmm. part de Abdoulaye. allo. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw Youssou Abdoulaye maa ngi koy wooteel man la yaayam. Mhm. dégg nga ko gis depuis lendemain depuis 2004. ah. surtout tey. il a grandi hein. oui il a grandi vraiment. <laughs> donc ñu ngi lay nuyu kontaan bu baax a baax. merci li nga mhm. merci. donc ñu kontaan bu baax a baax ci émission bi te yàlla na jëm kanam. amiin merci beaucoup amiin. di nuyu tamit sama nijaay El Hadj Modou Mbaye Garmi. ndax ah. ñëw na ko seet si ma. dëgg la. ñu kontaan trop vraiment. tur bi naka la. Euh, man la Adama yaayu Abdoulaye. yoo yoo yoo Adama dëgg-dëgg bu aram seen. waaw bu aram seen dëgg la kay. Eh, mbay ca Paris. waaw ca Paris. waaw waaw waaw bëgg nañu la kontaan ci yow. billaay kontaan nañu trop trop trop trop. waaw kay ndeysaan. Adama defe naa tey kontaan nga ci album bi di euh, fàttaliku. Mm. Euh, bëgg dama kontaan. bëgg nga koo am. billaahi bëgg naa ko am kay. xam nga sori nga ma. Euh, waaw. Euh, boo coupé léegi mën nga dugg ci euh, site internet bi ñu def ci suufu ecran bi muy www.senetunes.com. waaw bu ko defee mën nga télécharger way yëpp nag. d'accord amul benn problème. voilà comme saa nga def ni waa Sénégal am ko. incha allah bu ci yàlla àndee. waa kay nga nuyul ni waa France yëpp. ni ma Abdoulaye. jërëjëf ñu lay a a baax. Euh, waaw euh, euh, xanaa rek di la wax ne Youssou. Uh-huh. conseil yàgg na. Uh-huh. bi mu déplacé ci Bercy bu mag boobu. Uh-huh. fekk doom ji ci ci woy Youssou ci la jànge way bi mu ñëwee daal mu ne ko xale bi dafa bëgg way mu ne daal su ma sañoon dafay jàng. bi ñëwee Paris loolu la ma wax. mu nekk conseil yoo xam ni conseil bu am solo la. ndax xale jàng rek moo ko war. kon tey bu àddina doxee tey ba xale boobu tey. Euh, njàng moomu la mu ca am. Euh. su la ko waxoon addi loxo dem gémmiñ. moo tax bay nga seeti ko keroog. waaw waaw ba nga demee Paris. <laughs> Ah, ah, waaw Pape Cheikh bul yem foofu de. waaw. <laughs> j'étais pas au courant de ça. <laughs> barki démb bu dama laaj waaw dañuy dañuy gërëmante comme samedi bu jot dañuy gërëmante man ak ah. moom mm. ah mu ne euh, Papa Cheikh nag Euh, bu euh, président Youssou Ndour woote woon euh, <laughs> naat sàngara moom buy ñibbi day. damay tërëf a tërëf ah. <laughs> noo délégué la daal fi wax noo délégué ma ne ko kon nag mbay boo tërëfee man su may dox dama yàllax <laughs> su may ñibbi damay yàllax. bagage yëpp yéen a ko yor léegi ma laaj ko ne ko ndax bu Youssou Ndour jaloon jaloon jalam bii ne ku ma mësta may bu mu laal ndax di nga laal mu ne ma du laal ma ne ko man tamit du ma laal. ni touche ba booba booba sax bar a baax léegi. dañuy dañuy woo nag euh, Ami Collé mu ñëw woyal ñu mm. xanaa ñu fàttaliwaat leen rek ni mën ngeen woote ci numéro yi ñu livré leen euh, album bi à domicile ndax bëgg nañu Sénégal yëpp am ko euh, laataa ñuy wéyal waxtaan bi ak Youssou Ndour tey jii ci ndaanaan ci télévision Futur Média Sidanta Ndiaye bi nag bu dee bëgg mm. ngeen ko am comme sonnerie ci seen i téléphone portable turu Ami Collé ci boppam ngeen di yónnee ci 26 500 da ngeen di def AMY ami ngeen di yónnee ci 26 6 500 boo bu ko defee ngeen am Sidi Anta Ndiaye bi euh, ma bës léegi bouton bi bu ko defee mu mën a affiché wu euh, ci euh, suufu écran bi ngeen mën koo gis ndax loolu mooy solos bis bi tey Sénégal yëpp mën a barkeelu ci album bi di fàttaliku 2015. Mm. et puis lépp loo xamante ni projet bi. am na ko. Mm. dinañu ko jagleel. Mm. ay euh, xarit yoo xamante ni mm. ku ci nekk am na loo xam ne def nga ko ci réew mi te soxla réew mi. Mm-hmm. ñoom ba ñu so ba ñu ba ñu bëggee def dara ci réew mi def nañu ko am na nag fu ñu toll. soxla nañu réew mi il faut que réew mi jóg. Mm. te euh, fàttaliku loolu la bëgg a euh, wone. waaw Pape Cheikh jërëjëf. Mm-hmm. rafetlu naa trop nga insister foofu. Mm-hmm. ndax finalité. loo gis dafa am njëlbeen ak fa muy jeexee. finalité amu ci mhm. lii dañ koo yee mhm. mu war a yeewu mhm. warul sax nelaw mooy bu mois d'avril jotatee pour le moment maa ngi ko jiite bu mois d'avril jotatee balaa moo ñëw ñu tànn ñeenti morceau tànn ñeenti ndaanaan ñu woy ko comme ni ngeen koy waxee pelloo ko ñii awonte ñu génne ko luñ ca am ñu denc ko soxla yi bari na am na ci ñoo xam ne ñoo fi defoon morceau yooyu. Mhm. xëy na tey seen euh, voilà amatuñu ay moyens mënatuñu ñu mën nag au moins mhm. di créer benn association comme ni ko waa France di defee pourquoi mhm. pas ñu def ko ci dimbal mhm. solidarité fii la fekk baax donc dañ koy organiser rek donc loolu moo tax euh, ku nekk ci biir projet bi rek am nga ci responsabilité boobu te yaakaar nañu ne bu ñu commencé promotion bi tamit dinañu mën a génn pour mën ko jouer nit ñi live incha allah benn bés loolu ñu ngi koy pare moo ah. tax euh, daanaka tuuti ci groupe bi ni ñoo ko jouer ñoom kanam daañu leen euh, mhm. gërëm ndax gis naa coo euh, ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay tëgg rek Sayer Mbaye ah, ak euh, mu àndal ñëpp Pape Omar et tout ça kon ñu bàyyi leen nag Ami Collé mu woyal ñu di Anta Ndiaye Sidi Anta Ndiaye nag bu ngeen ko bëggee yónnee leen Ami ci 26 500 kon ñu dem ci léegi ci télévision Futur Média kontaan nañu Sénégal daal kontaan na El Hadj Mbaye Garmi waaye euh, euh, président Youssou Ndour ci boppam euh, ba ma ko fekkee studio ba ba mu déggee lii dafa daanu. Mhm. ndax munoo defar nit defar dara ba pare. Mhm. mu daaneel la encore. c'est-à-dire mhm. dama seetlu ni. boobu ba tey yaa ngi ci di ko liggéey. et tout ça mais bi mu paree ba tey sax yoo ko dégluwee. dafay mel ni yaa ngi koy doog a déglu. waaw xam nga ci way dafa am suux. loolu la ñuy wax soul. Ah. américain yi tuddee ko soul. waaye elle macha allah ko way euh, interprétation bu rafet ah oui ba pare mu am euh, lu ci gars yi def mu indi benn benn lu mel ni étoile. Ah, lu mel ni couleur yi lu mel ni couleur yi nga teg sax. <laughs> dafa xam nga. voilà leer leer waaw. daal di neex. ba pare mu def ci performance yu mag. parce que way na ci ak uh-huh. mais à un moment dem na fekk yi sa maam. fexe fexe way comme na mu wayee woon. wàccul sa yoonu maam. voilà itam yoon bi nga ko jaarloo ci way bi. c'était important pour man donc man dafa def interprétation boo xam ne dama ci kontaan comme ni ma kontaanee ci interprétation yëpp. Mhm. dama cee kontaan parce que morceau bi nag dafa am histoire boo xam ne daf ko lié ak man. Ah. donc moo taxoon nag du ma woon nangu. Uh-huh. Euh, ñu la koy woyalee n'importe comment du mën a nekk donc bravo ami Collé. <laughs> Uh-huh. ni nga ko woyee macha allah te yaakaar naa ni morceau bi moom ci morceau yi gën a génn njëkk a génn ci album bi ci la bokk. ah, ah, ah, ah parce que euh, boobu ba tey ba ci commentaire yi ci Facebook bi. Mm-hmm. Euh, suñu xarit yaa ngi réagir parce que fàttaliku nag dafa am page boppam moo tax xam naa ngeen di réagir sànq ba tey ci Facebook bi ñu ngi leen ci gërëm bu baax xam naa ni ca kanam peut-être bu ñu gënee am jot dinaa leen liiral yenn ci ay commentaires yoo xamante ni na nga ñu koy yónnee euh, ci euh, page u euh, fàttaliku 2015 rek ngay def nga dem ci Facebook bi mën nga def say commande mais mhm. aussi mën nga def say commentaire ci woy yi nga xamante ni ñoo ngi ci muy Pape Laye mbay muy Abou Thioubalo muy Bouba Kirikou muy Ami Collé mi nga xamante ni moo ñu woye léegi si di Anta Ndiaye la ca neex nag mooy démb ak nouvelle technologie avant ñu ciy wax élage bañ ci wax ak ki nga xamante ni moo di président Youssou Ndour dañuy bàyyi itam mhm. Ami Collé wax nag taxawaayam ci fàttaliku 2015. Mm. Sénégal daal kontaan kontaanati nañu ci yow Ami Collé. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci Seydina Mouhamed sangu sang yi. Mm-hmm. di gërëmati yuusu rek ndax ngërëm boo xamante ne du am ab benn yoon. Mm-hmm. yuusu moom Sénégal àdduna ñëpp ko war a gërëm. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu macha allah. borom jom la nangu naa liggéey. am na fulla am na fayda référence la mm-hmm. royukaay la mm-hmm. royuwaay la euh, defe naa ne lii mu def nii Pape mm-hmm. du lu yomb du lu ndaw woo ñeenti ndaanaan jël leen yóbbu leen studio tette leen tatagal leen wax leen ni leen nii ngeen di def jaar leen fii waye leen ko nii defe leen ko nii ba ñu def ko ba lépp àgg ba suñu borom teg ci loxoom ba lépp yemb yépp baax kon jaaraama Youssou maa jigéen Ndour ndax tayit euh, maanaam artistes yi bari nañ fi lool waykat yi bari nañ fi mais xol bu xol bu rafet bii mu yore ba def ko am na ñoo xamante ni ñu ngi fi nekk di way te defuñu ko tayit defe naa ni Youssou Marie Sène li nga def yàlla suñu borom dong moo la ci mën a fay ndax ku ne xam na ni showbiz metti na woy metti na te léegi album jaratul waaye bu la yàlla mayee xool bu rafet ak yéene xam ne ñun artistes yi ñun artistes yi ndaw yi ñu ngi ci ginnaaw te war nga ñoo war nañoo war a mën a dem ber suñu yoon dem ca kanam nga xool ko ba seppali def ni Ami Collé Dieng na ñëw Abou Cubala na ñëw ak Modou Kiriko ak ñeneen ñi ak doomu njagambay bi nga xamante ni ba ngay ànd ak papaam loolu yàgg na nga def ci lu rafet génn album bi tey jii defe naa ni Sénégal dañ laa war a sant sant nit ki nag du sant ni ay wax. Sénégal laa bëgg ñu xam ne Youssou Ndour barke Seydina Mohamed nit gënu ko. Youssou Ndour mi nit kenn nit gënu ko. ndax li tax ma ne nit gënu ko. Youssou boo ko ñëwee fekk ci studio bi mu toog. Mhm. danga naan kii est-ce que Youssou la. day mel ni xale. simple na. Mhm. oyof na. Mhm. yaru na tey na. yaa may déglu te loolu noonu yombul am na ñoo xamante ni ñi ngi fi woy bëri tiitar lu ne ñu kii ko te Youssou Ndour fa tabaarakallaahu macha allah mhm. yàlla may na ko li muy may ci li koy li mu koy may ci aar ba pare jërëjëf kon yaakaar naa ni moom bu jëlee ñun ñi nga xamante ne ay xale lañ daf ñu jàppale rek jërëjëf du xaalis bu mu ci soxla <laughs> du loo xamante ni da koy def ngir dugal ko ci poosam ndax Youssou tedd na démb tey soo ko ñëw mais daf ñoo yërëm Youssou dafa bëri yërmaan nit nag mënu koo xam damay bañ damay eh, bañ damay bañ nga Youssou Ndour damay bañ nga aalu Youssou Ndour damay bañ nga aalu Ami Collé waaw non li may wax ni da barke alxuraanu karim sama xol la ne man xam naa sama bopp wallaay xam nañu Youssou uh-huh. yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér yàlla na nga am jàmm man waxuma ko ngir ay woyaan déedéet mais Youssou yow dangaa baax nit bu la xamul rek xamul la police maa fekkee la bëgg te fekkee naa li ngay wax ah, te it ku ma xam ku ne xam ni man du ma te du dugg ci lu ñàkk fayda du ma wax loo xamante ni mënuma ko jërëjëf jërëjëf waa di gërëm tamit jërëjëf ki nga xamante ni moom a ñawal sañse bi rafet na ki nga xamante ni moom a ñawal nekk HLM 5 di sama càmmiñ di sama xarit lépp lu may def mu ne ma ami ko la jëng ñëwal ma solal la muy euh, kii nu mu tudd sax xalifa xalifa mbergaan maa ngi koy nuyu bu baax jaar na ci sañse bi rafet na torop merci kontaan naa te bëgg naa nag mu ñawal Yuusu voilà bu rafet jox ko ko <laughs> euh, mu nekkoon euh, ah. Sidi Anta bu ami Collé fàttali leen ni man ngeen ko am sonnerie ci seen i téléphone portable da ngeen di yónnee turam ami ci 26 500 bu dee da ngeen bëgg woy wi nga xamante ni Pape Laye Mbaye euh, moo ko def euh, di sëy mën ngeen yónnee turam itam euh, di Pape ci 26 500 bu ngeen bëggee Cheikhou Tall da ngeen di yónnee turu Abou ci 26 500 bu ngeen bëggee welcome itam welcome to Casamance itam mën ngeen ko am da ngeen di ko yónnee ci SMS bi ci 26 500 bu ngeen bëggee woy yëpp nag mu ngi disponible itam ci 3w Euh, euh, Sene euh, Tunes Euh, point euh, euh, point point point com c'est ça. Mhm. bu ko defee ngeen mën a am album bi et puis livraison à domicile yi pour suñu xarit nga xamante ne ñoo nekk fii ci réew mi mhm. mën ngeen woote ci 77 182 20 82 wala ngeen woote ci 33 868 13 32 laataa ñuy déglu hymne bi nga xamante ni hymne Casamance la hymne Sénégal la El Hadj Mbaye Garmi li nga dégg Ami Collé def ko. Mhm. defe naa dëggal nga ni ndaanaan la moom itam. surtout góor Sané yëpp kontaan nañu. Mhm. amul benn gawlo tey bu bégul tey. Mhm, mhm. gisuma Fap Thiam Samb de. waaye xam naa ne am na lu mu yëg. ndax jotoon na rek téléphone maa ngi moom. amul ñaari fan. mun na Amadou Mbaye Gani bég naa. ak Fap Thiam Samb. ndax te man li ma am. su ma sañoon du ma ko jox kenn sama sët rek laa koy jox. kon nii Ami Collé def tey. ak fi mu wooyee. te am na mag ñoo xam ne way moo leen di dundal fàncaam ci la bokk mm-hmm. tey lii mu seetaan bét ci mm-hmm. boo ci jógee nag na nga ko seeti mm-hmm. incha allah jox ko loxo waxtaan ak moom ndax doo ko réccu ndax li ne ci boppam bari na ñuy nekk ci réew mi te newut seen bopp te ndaanaan la tubaarkàlla tubaarkàlla may nag ma dégg fi nag lu ma neex léegi yu su ne daal dëgg-dëgg mag noonu buuseetuñu dematu wallaahi te bi lay yàgg na maa yónni ci mag de wallaahi wallaahi daroo taxaw ami ko li nga wax te Pape Cheikh feelu ci. Mhm. Amadou Mbaye Garmi ma dama ko dund. Mhm. xam ci lu bëree bari. Mhm. lekk dara bàyyi kenn. lu ma am daf ko bopp ak doomu aadama. ba pare nag gore nag. te gore boo ko couleur wul oyof ba ñëpp ñeme la. tubaarkàlla tubaarkàlla bu ñu dee wax ci yow dañuy tiit waaye moom. ci vigile bi nga xam ne moo nekk ci buntu rajo bi. ba ñi nekk ci kaw. ñëpp la yebal. bëtam yi taxul. ndax man mbay bari xar ma tax a ngeen di ko suñu ku ma ne jàkk xam nga ne am naa fay <laughs> waaye ci nit ñu baax ñi ci la bokk jërëjëf mbay patron yi nga xam ne doo ko xóot eh, ji suñu ci la bokk jërëjëf mbay ci sa doole ak sa course ci la ñu daye jërëjëf mbay waaye yow bee woo de déedéet na biir wallaay <laughs> alo euh, président Youssou Ndour defe naa li euh, euh, misaal la mhm. ci fi réew mi nag war a toll mhm. mooy bu suñu borom jàppale mm-hmm. nga nekk ab kilifa mm-hmm. war nga jàpp nag ci ndaw ñi mm-hmm. te loolu yaa ngi ciy dox te defe naa bokk na ci message yi nga xamante ni fi mu tollu tembe sax nga ci di ko jox waa réew mi surtout kilifa yi ñu gën di jàppale ndaw ñi parce que lii la lii la lii la jeunesse sénégalaise soxla solidarité loolu la ñu jàngal ci lañuy jaar sax tam ndax suñu coow lu bari lii yëpp dem ci àdduna bi wër yëpp ñu siiw ak yooyu nit a ñu jàpp ci loxo wane la ñoo ak àdduna ñu feeñ wane lu nu mën kon nag noonu ñu jaarale noonu la war a jaarale suñuy rakk suñuy doom euh, réew mi dafa am ay banqaas yoo xame ni que faaw ñu si bàyyi xel mooy d'abord aada solidarité ak mag ñu baax ñi liñ fi def ba nga xam ne réew mi nekk li mu doon donc loolu nag ci domaine yëpp daf ci am mhm. am na ci domaine art bi mhm. am na ci domaine économie bi mhm. am na ci domaine politique bi am na ci domaine religieux bi am na domaine yu nekk man dama considéré ak sama mbokk artistes yi que lépp loo xam ne dafa jëm ci art jëm ci artisanat loolu yëpp man dama war a continuer di ki dox sama wàll. Mhm. sama waar nga xam dama du ci tàggu kenn damay dem di ko dox di ko dox di fexe ba loolu di sax di dund. Mhm. Euh, bu ko defee keneen jàpp ca leneen. Mhm. keneen jàpp ca leneen loolu mooy tax réew. mën a dem kanam. dem nañ ci nag tuuti ak expérience boo xamee ne que ñi ñu àndal dañu bare. Mhm. c'est occasion bu sax laay jël euh, pour encore féliciter Super Étoile. Ah ndax ñoo nekk ci ginnaaw projet bi. Mhm. Euh, bi projet bi euh, ki Moustapha Faye moo ko jiite. Mhm. parce que ñun dañuy def projet bu nekk dafa am kenn ku koy jiite. donc bi moom moo def réalisation musique bi. boo gisee mbay Dieye gisoo ko par exemple. fii. dafa retrait ah. coo moo monté voilà coo moo tëgg parce que coo mhm. dafa am expérience avec euh, way yi daf ko dund mhm. tu vois ñu indi Pape Oumar donc mhm. euh, Baro aussi nekk loo xam ne ni que moom dafa participer woon si euh, fàttaliku 1 2014 waaw moom moo joué xalam bi donc continue donc Biram def ci rôle bu mag a mag a mag ah waaw Biram moom moo moom moo parce que Euh, biram am na yoo xam ne su ma ko bëggee wax. Euh. Euh, ci moom lay jaare mooy gën a gaaw. très pour mu pour mu dem ci ñeneen ñi. Pape Omar nag nga xam ni que moom moo jiite mbir mi yëpp ak lay lay Lo. ak Alain. nga xam ni que. le sénégalais. voilà waaw le sénégalais qui a amené le sax. <laughs> voilà delloosiwaat sax donc vraiment ñu ngi leen di féliciter fàttewuñu fàttu waree aussi ñu leen di féliciter di wax ne que voilà. musique bi euh, dem na ba nga xam ne ay machine la ñuy wax ne moo koy ñu ñun ne déedéet. Mhm. nit moo war a nekk au début et à la fin de tout. dëgg kon musique live man dama ko gëm. Mhm, mhm. dama gëm ne ne que la tubaab bi di avancé yëpp. ak ci technologie di programmer nga xam ne dañuy toog rek léeg-léeg li programmer. loolu lii moo ko gën. moo gën a authentique. waaw leneen moo gën a pratique léeg-léeg. mais lii moom moo ko gën. te fii ci Afrique. fii ci Sénégal. boo Euh, musiciens yi. Uh-huh. ñu ngi continuer di dundal. Uh-huh. di humaniser. Uh-huh. musique. donc dañ leen war a euh, encourager. gën leen jàppale. parce que milieu boo xamee ne que ay junni junni junni nit ñoo ci nekk di ci liggéey. dama ne Pape Cheikh Diallo. milieu art bi. d'une manière générale. boo boolee artisanat ak art. ay millions ngi nit ñoo ci ne. ñoo fi ëpp ñoo fi ëpp ma ni la boo jëlee artisanat jël aar jël lii ñoo fi ëpp kenn du leen dégg su ñàkk fayda ay liggéeykat lañu dañ leen war a jàppale man sama wàll dinaa ko ci dox loolu la ñuy continuer nii te loolu mooy réew réew il faut que banqaas yëpp mhm. dëgër waaw loolu moo tax nag euh, aar bi mhm. ñoom rey ko benn yoon il faut ñu koy dundal mhm. muy continuer mhm. loolu daal laa bëggoon a wax euh, pour wane ne que vraiment projet bi aussi du man rek maa ci nekk dafa am ñu ma ci ànd staff la déjà voilà euh, bi ci topp Bouba nekk fii mais bëgg naa ñu déglu ci tuuti parce que hymne la waaw hymne la muy welcome to Casamance Trinidad. Sois le bienvenu. Welcome to Casamance. lépp ngi fii bul indaale dara. Sois le bienvenu. Welcome to Casamance. su fekkee histoire mooy waa. ngeen ak jàmboor ñi te ñaar mos ñoo tàggalikoo waaye sangoo mar li mujje tàggalikoo ngelu foor ñëw xaar seen gaar ki jëm penku kële jëmu soow oo Casamance ma cosaanu séeréer ak joola tàmmali di ko génne du tey démb la woon ak genn ak jàmbur la woon daara tabe la woon dera nga teg ba tey ñuy sàmm dem ak lépp lu mu am kàllanteeg ceeb ak may sa gur di capturé làkk yi rekk wute tere di demoon tuure cosaan ak aada fii la njukkeel yi bato yi na songe ba si naa yoo di leen boole tey démb la deret dafa menace yu démb tradition da lay doy bay dundee di aada gàncax gi ngi gën a naan gasat dañ di rooti naan jigéen ñi xëy bañ di ñaan jàmbar sa war sañ tëbe dañ di jox sa baay Sénégal di la nam Casamance di man si di la soyez les bienvenus. Welcome to Casamance. ci album fàttaliku 2015 welcome to Casamance wala bonjour Kasumay boobu nag ñu ngi may waa Casamance Bouba Kirikou euh, ngi euh, Canada mais jot nañu ko sànq bëggoon nañu ngeen dégg itam extrait boobu euh, Facebook bi itam bu ñu paree ndaanaan bi sax forum bi dafay continuer parce que fàttaliku 2015 am na page am mën ngeen envoyer seen ay questions seen ay commentaires par exemple kii mu ngi tudd Astou Alioune Fall mu ngi naan félicitations pour l'album en fait je voulais juste demander pourquoi fàttaliku. ah pourquoi fàttaliku parce que comme euh, ni nga ko waxee sànq dañu bëgg wane ne Sénégal dafa yàgg am ay composition yu mag. Mhm. mooy fent. Mhm. fent ay way yu mag. yoo mhm. xam ne que mélodie yu am solo yu marqué. réew mi la. ñu bañ ñu fàtte ko. ndax jamono dafay dox mu am ay période yoo xam ne dafay nekk période yu fent bari. jamono yi ñu nekk nag xëy na mhm. fent barewul comme na mu bare woon ay temps mhm. loolu nag ñu xool aussi xoolaale situation mhm. artistes yi nga xamee ni que ñoom ñoo fi defoon loolu ba léeg-léeg ñuy dem bay wax naan yenn artistes dañuy nekk dans la précarité moom mooy dañuy am soxla duñ ko mën a faj wala ñu feebar sax teen du leen mën a faj ñu ne bu ñu defee lu mel ni di dellu siwaat ci waykat yu yi actuels yi di reprendre way yu njëkk ya lu mu jur ñu mën leen ca dimbale loolu mooy idée bi départ waaye lépp musique la d'abord du xaalis musique la d'abord dañoo bëgg d'abord di dundal musique bi loolu mooy waral fàttaliku et donc projet boo xam ne day continuer la comme bu dee ki posé question bi xam na un tout petit peu euh, li gars yi di def euh, en France te ñu coliche créé woon ko muy les restos xam nga resto boo ko déggee da ngay foog ne rek restaurant la mais effectivement dajale la boo xam ne ay artistes chaque année dañuy dajaloo dañuy wër sax France defari ay album am ca xaalis pour jàppale ñi néew doole ñu nag jàppale ñu néew doole nii rek dañuy jéem a jàppale ñi nga xam ne ñoo doon artiste démb tey soog a ñëw voilà loolu moo n'aura pas le temps de lire ça beaucoup de félicitations que nous recevons euh, yu recevoir fépp ci àddina muy Amérique euh, muy Europe muy Asie ndax heure bu mu mën ci doon yéen a ngi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média euh, fàttaliku nag 2015 tournée yeeg seen ay datu spectacle yëpp dinañ ci ñëw di ngeen am information yi ci télé bi teg ci nag mën ngeen woote bu fekkee bëgg ngeen ñu livrer leen ko à domicile ci numéro téléphone yi nga xam ne ni léegi lañ leen koy jox muy 77 100 182 20 82 77 182 20 82 wala ngeen woote ci 33 868 13 32 mën ngeen itam euh, am euh, woy yi euh, comme sonnerie téléphone portable ci kaw ngeen jël tuuru artistes yëpp par exemple di Anta Ndiaye bu ngeen ko bëggee comme sonnerie dangeen di yónnee ami AMY ngeen yónnee ko ci 26 500 bu ngeen bëggee sëy da ngeen di yónnee Pape PAPE euh, ci 26 500 euh, euh, bu ngeen bëggee itam Cheikhou Tall mën ngeen yónnee Abou ABOU ci 26 500 mbokk yi xam naa bu ñu mënee tànn itam comme ñoo ko diggee woon ak yéen parmi. Euh, sunu xarit ci nekk ci téléphone bi yëpp El Hadj Man Mbaye Gar mi ñu jël ci kenn. Mhm. Euh, may ko mu waxtaan ak Youssou Ndour quand même. laataa ñuy tàggoo sinon damay bañ a bàkkaar. waaw te xam naa ni tam ñu mere ma. <laughs> dige bor la Baye Cheikh. waaw dige la dige woon nag Mbaye. Euh, na voilà kon ci cinq dernières minutes yi yu ndaanaan tey dañ ciy jël kenn rek may ko mu waxtaan ak Youssou Ndour mi dar ay rakam tey muy Abou Thioubalo. muy Pape Laye Mbaye muy Ami Collé ak Bouba Kirikou ci waxtaane album bi nga xamee ni mooy fàttaliku 2015 alo alo allo ayca ñu tànn ci kenn rek ñëpp mm-hmm. mënuñoo wax ak moom waaye kenn rek lañ ciy tànn parmi ñi nekk ci euh, téléphone yi ci allo juróomi minutes yu mujj yi alo alo alo alo yëkkati bi la waaw day euh, euh, saturé ñu ngi ci jéggalu <laughs> ñu jël ci kenn rek bu ko defee may ko waxtaan ak Euh, Youssou Ndour tey jii ci télévision Futur Média allo allo allo allo. Top Chef. waaw kay. Euh, euh, kooku salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaajëfal. ñu ngi lay fay di la sant yow it. mais sama wax. Papa Sidi Ndiaye laa je suis la plus grande collection de musique du Sénégal. Mmh. je mhm. sais de quoi je parle. et beaucoup de mhm. gens peuvent attester. Mhm. mais góor googu toog moom moo tax may wax muy Youssou Ndour. essence. lu mu tëgg am naa ko. ce qui est très rare. j'ai eu l'occasion de le côtoyer bi muy lancé Al Samadé ci Talla Gaye. on a même pris une photo ensemble. Je ne lis que l'Observateur, je n'écoute que RFM, <laughs> je ne regarde que la tf Je pense que ça veut tout dire. Si on veut un Sénégal émergent, mhm. il faut multiplier le Youssoudour par 10, mm -hmm. par 100, par 1000, par mhm. par par 1 million mhm. pour qu'on Voilà quelqu'un qui aime le Sénégal. Mon on à l'extérieur, bu baax boobaa ñun dañ koy jéggaane. mais dafa ñëw toog fii lu mu am fi la ko investir. lu mu am fi la ko jëmbat fi la ko saxal. yàlla yëpp sax. meññ jebbi ba am ay fruits ba Sénégal jëriñoo ko. Ndour man de doomu buur laa. Mhm. mais maa lay sant di la jaajëfal di la. jërëjëf jërëjëf. ami collé aussi wayu wayu dama ci gis sama ah. parce que Sidi Alboury Gan Siri Diop moo ko jur. Mhm. Gan Sil Diop ak soxna Fatma Thioub. Fatma Thioub wàccit mooy way Serigne Cheikh. wallaay nga ma. gàncax boo xam la may. may naa la sama bopp ci way ah. jërëjëf. jërëjëf kontaan nañu bor. jërëjëf buur de moo maye boppam. Hmm. jërëjëf sa dossier daañu ci dëgg dëgg si surtout Alboury hmm? boobu wallaahi Ami Collé tey am nga loo xam ne lii bari nag dëgg dëgg artiste buur may na boppam président Youssou Ndour ñu ngi lay gërëm bu baax euh, kàddu yi ngay tëjee tey waxtaan bi lu muy doon jërëjëf mhm. damaa bëgg balaa président Youssou Ndour di wax mhm. du sama soppe nag xëy na lu ma bëgg la te mhm. manewuma ñaan te géwél laa waaye dañoo bëgg nga wutal ñu ñun groupe bu fecckat yi ndax Sénégal rek la ñor boo demoon Europe ñu téye la ndax dugg naa ci dëkk boo xam ne bir na Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul xamuñu senegaal te dégg naa ñuy woy say way <laughs> waaw ay nasaraan yu weex taal yàlla bu ma am dara ci fecc moom laay ndamoo bu ma damoon tey yàqu damaa bëgg ñu wutal ñu producteur ndax buñ mënee jël Konzon Happy di ko clip war a mën a jël clip bu Youssou ca wayam yu yàgg ya <laughs> clip ko <laughs> déjà déjà am ngeen émission am ngeen daanaan déjà waaw man nag loolu rek laa bëgg ku ñu jàppale waaw <laughs> ñun li ñe ci suñu bopp uh-huh. ñu génne ko donte ay xale lañu aar rek a ñu ñor uh-huh. cuubu ñu ko fara faraw ñu ko aar rek la ñuy dund bu ñu amee ku ñu dimbali rek léegi Sénégal ñu xam ne am nañu ay ndaanaan incha allah mhm. maa ngi la koy dagaan di la ko ñaan ngir jëmmi sëñ Mourtala mi ñu bokk jërëjëf loolu rek laa bëgg bàyyi naa laaj sama bopp nag ak xale yi nekk ci sunu ginnaaw jëf Fatou Wéré jërëjëf Pape Cheikh euh, incha allah lépp loo xam ne que rek visibilité la bu ñu war a wane nit ñi rek incha allah jumtuwaay yi ñu ngi fi mhm. te yéen tamit yàqu leen aar bi mhm. ndax euh, fecc Euh, dafa complémentaire. Mhm. tey rek maa ngi koy wax ci benn journal di wax ne que booy déglu musique sénégalaise te gisoo pecc ma da mën na mën ngaa réer boo déggul wolof. Mhm. Mhm. dégg nga de. booy déglu mbalax. bëgg ko. gisoo pecc ma. mën ngaa réer boo déggul wolof. dégg kon nag dafa nekk complémentarité bu am solo ndax musique mbalax dafa am complexité ba pare am originalité donc euh, li ngeen di def ànd na ak ñuy def ma bëggoon aussi profiter aussi occasion pour remercier kon ñëpp ñi nga xam dañ jàppoon ci projet bi ak ñi ñu gis ak ñi ñu gisul di wax euh, nit ñi comme ni nga ko euh, waxee ñu jënd album bi toppatoo album bi am na ay promotion yu ñu ci prévoir maanaam live dañu xool xool avec euh, temps bi bi ñu am mm-hmm. nan la ñu mën a defee pour que lii tamit ñu mën ko représenter mm-hmm. pour mën ko jouer mm-hmm. beneen bu may bëgg wax tamit moom mooy comme ni ma la ko waxee woon euh, projet bi tamit pare nañu euh, pour dem fépp si média yëpp yi nga xam ne dafa nekk ci réew mi mu yeneen télévision yi ak yëpp pare nañu ñu jël contact ak ñoom Pape Cissé pour que ñu mën def ay émission ak ñoom parce que projet bi aussi tamit dafa waaw mënul nag bara jaar ci bunt bi ngir plusieurs raisons ngir yow ndax cër bu nga xam ne dañ la ko cërale ci projet bi nga nekk xale boo xam ne ko dox nga euh, ci fàttaliku lu am solo tayoo ko sax ba nga koy def mhm. moo tax ñu jaaree ci yow mhm. invité la ci studio bi nga wax ñu sa xalaat mhm. da ñëwoon ñu wa ñu tegal la nga déglu nga wax ñu la nga xalaat ñu rectifié yi mu yem ci suñu biir jërëjëf waaw moo tax ñu jaar fii léegi nag bu ñu fi jógee dinañu programmer dem ci télévision yëpp euh, de organiser ay ay plateau pour que xale yi mën a def seen promotion wane seen bopp léegi maa ngi leen di gërëm di leen sant ah, émission bi am na solo ah, je pense que plateau bu am solo la dee mukk déedéet musique mm-hmm. du dee mukk kon kon ngeen jàpp ko mm-hmm. jërëjëf mu ngoog musique du dee fàttali ko 2015